Amadou bu tudd Aliou Bodiang waa léegi-léegi ñun dañ fiy toog famille boo xam ne ñun ñoo leen def li ñu nekk ñu nekk fi di ñu sànni ay grenade lacrymogène di ñu rey démb gis ngeen xale ba ñu demee ci benn lycée ñu sànni fa ay grenade ba benn xale bu jigéen ndeysaan ah xëm gis ngeen li ñu def Adja Diallo gis ngeen li ñu def booy bi ñu rey fële Kër Mbay Fall waa léegi ñun dañuy toog ñu jàpp ñu di ñu rey ana sëriñ yi dans tout ça la samedi il faut ñu ci Nous notre premier ennemi muy Ali Sireba, cours cour suprême nous sommes ci sëriñ yi naa soxor iñaane Seydina Sonko mu bi ndax yow nga nekk ci dëkk nous sommes maam fi Seydina Ousmane Sonko mu sel mi génne len ci ba ngeen set ba ngeen set wicc bu dulon mom dëkk bi day tak tay ngeen di seetaan ñu japp Ousmane Sonko di toj auto ñu japp Ousmane Sonko wër kërëm ñu japp Ousmane Sonko ne ko doo bokk ci élection yeen ngeen tok rek di seetaan ñu dem Casamance ndarun ko japp ngeen tok di seetaan kon yeen dafa melni yeen ci complot bi ngeen bok te ku fi wax dara sëriñ ñu ne dañ koy attaquer dégg na Kona xaw ma benn mbër am lu mu wax ñese ni ba ñu génne conférence de presse naan dañuy menacer nit ñi fi amu leen kenn ko leen fi mëna menacer askan bi ñoo leen ëpp doole fofu ñi liñ leen may ñoo dafa ëpp barki rasulallah dafa ëpp biñ fi nekk di top seni mam di leen ramal di leen indil ay addiya ba pare ngeen gënni di def ay conférence de presse di cibler ben nit Kona parce que wax na léegi man Kona xaw ma sax limu wax mais leer na ma limu wax dëgg la xawma sax limu wax. dafa mel ne rek booy noble biñ fi ndaroon a rey lu tax parce que dañoo tojate kantinam kantinam mu génn di wax ne dañoo toj dañoo toj kantinam ñu bëgg fare mais sëriñ yi moomuñu bu ñu gisee ay Cheikh Baara Dolli génn di wax naan sama mbaam sama maam sama maam man sëriñ Touba man sëtu sëriñ Touba laa man mii sax dañ ma woo damaa wuy ji yow da nga dañ laa woo ñu Macky Sall laa tëj da laa toroxal fi affaire sëriñ Touba amu fi doon la ñu nekk murit nee naa leen man sama mag dafa gor ay garab xelkom ñibbi si Dakar rek dee gënu leen ñu fi gëm gëm Serigne Touba mais xoolal ñun senegal la ñu wax doo leen fi nekk Sonko bu jekkoo Macky Sall ngeen ngeen ne ne Sonko dellu ginnaaw waaye bu ñu Macky Sall jekkoo ndara rey Sonko ndara tëj Sonko ngeen noppi gis nga gars yi booy ñoo war a jël seen responsable ñu jël affaire Serigne ñu teg fële ñu nekk fii di leen dikk ay àjjana te ñoom. àjjana bi ñuy wax gëmuñu ci dara dara dara ndax ñom ñi ngi ci 75 ans ñi ngi ci 60 ans ñi ngi ci 80 ño gëna jégué yalla Tina Turner kat bu mag gis nga 83 ans jëk jëk rek dé tay ñom ñëpp ño ñu gëna jégué àjjana buñ ko gëmoon buñu gëmoon àjjana parce que ñom ay ñaari at mo leen déssé ñetti at ñu dem ñuy dem àjjana kon dinañ fi nekk di wër kat kat dinañ fi nekk di tak ay jégg lan moy ndeyu ñuy dem Touba walla di dem ci di leen raamal surtout sët yi lan la ñu def ba ñu leen di raamal Cheikh Cheikh Bass Abdou Khadar ñu koy tuddee Boy Bass kooku lan la ñuy toog ci suuf pour moom koo xam ne dañ koy toog di ko jiiñ ay milliards ba ñu naroon taal kër Assane Diouf tey ñu toog kayis foofu di ñu wax ne Macky Sall bind nañ ko kayis foofu waat na ne Cheikh Bass Abdou Khadar turam dafa nekk ci ay dossier IGE ay rapport comme Mame Mbaye Niang nu mu amoon rapport mais loolu dee dëgg la est-ce que ñun loolu war nañ ko nangu est-ce que war nañu nangu porte-parole xalif général nekk ci ay deal ñu ne dañ ko jox euh, aéroport marché aéroport euh, Saint-Louis mu mu mu lekk xaalis bi bu dee loolu dëgg la ñoo war a yeewu ñoo war a yeewu te xam ne sëriñ affaire àjjana yi ñu leen di gëmloo amul àjjana bi fii la gis ngeen gis ngeen picc yi gis ngeen picc yi fii la uri ay nii nekk fii la lekk yuy neex yi nekk fii la oto yu baax yi nekk te ñoom ñoo ko yor yeewu leen yeewu leen ngeen dëggal seen bopp xale yi billahi wallahi ta'ala ñun ñi sax dañoo mer te ñun ay millions lañ yor ñu ngi liggé ñu ñuy fay xaaliss mais ñun sax dañoo mer parce que xaaliss bi ñu yor sax pour ñu am ci kër Sénégal dafa métti parce que réew mi yëpp sàcc nañu nday suuf yëpp lañu sàcc fi bo fi liggé ba am 30 millions sax bo ñëwé Sénégal Dakar mëno mëno fa am kër kon ñu sëgëm ñun ñoo mer waxtu mala ak yéen yéen 100 francs do lañ ko am xaaliss ñoom dañ ko jafel dañoo def ne xaaliss dafa jafe xaalis jafewul خالص تفاول نيوم ماكي سال نيوم كوتي مامور ديال بو 300 مليون ديكو جوخ الف حسين غاي nga xamne خالص تفاول نيوم نيو لين گملو ني خالص دا في كوي رخص بول باتو بي مي ليغي كي رخص بول ني رخص بول نيو في گن توتي سالير تي وير بو ديوي دي نان ام لو اوب 1 مليون 500 بالله والله تعالى 1 مليون 500 دنج كوي لال c'est vrai que heure supplémentaire bari mais senegal bo done ligue heure supplémentaire ba dié mëno am salaire 200000 parce que ñom ñoo téy waaw loolu benn parenthèse la mais ni ma ñëwaat dama bëgg ñëwaat ci Ali Siré Ba combat bi combat bi Ousmane Sonko bu mu nelawaat bu mu nelawaat parce que Ali Ba bu xasee rëx da ndiggam ne ko bokkoo léegi fan la ñu jëm léegi ñun dama leen di laaj Cour suprême bu bu ñu xasee tamponné ne Ousmane Sonko bokkul amatul appel amatul appel léegi kon Sonko la def dafay nangu. wala mu ne xale yi gën leen ngeen xeex mais boobaa c'est trop tard xam nga xeex bi nan ngay xeex gañe comme ni ñu defoon euh, mois de mars mois de mars dañ ne woon juge bi dafa ndoroon jël décision waaw Ali Siré Ba la tudd waaw kay amul temps pour juger loolu laa la bëgg expliquer gis nga le 8 mars xaw ma le 7 la xaw ma juge bi dafa ndoroon jël décision ñu xam ne. dafa ndara jàpp Sonko waaye gars yi gën leen laa gën leen partage ñu xam ne dafa ndara jàpp Sonko tëj ko gars yi nekk nag du fi amee parce que Sonko dafa demoon dafa ndaroon dem pour wuy ji bu demoon pour wuy ji Sonko dama ko yërëm jour boobu jour bi muy génn tuuti ma jooy parce que sëriñ ñoo ko teg pression sëriñu naafeq yi naafeq bu ma kenn yóbbu kër yaa ma di tax tudduma xalif général tudduma kenn bu ma kenn yóbbu kër yaa ma di tax mais sëriñu iñaan yi sëriñu soxor yi sëriñu tiit yi sëriñu xiif yi nga xam ne ñoom seen privilège bëgguñu système bi changé système bi système Baye Ndiaye bi bëgguñu mu changé ñoom ñoo ne ko garaaw rek demal wuyu demal wuyu demal wuyu Khalifa Sall dañ ne ko demal wuyu Karim Wade demal wuyu demal rek demal wuyu ndax Sonko mortal combat la waxoon Sonko génn def benn discours mu ne maa ngi dem waaye dara dalu ba est-ce que yéen a loolu gars jour boobu tuuti ma dem mais dara dara ci prison ba buma fa dara la ma empoisonné xam je ne Macky Sall fa jabet comme Boubacar Sey xam leen ne Macky Sall je ma am tension Macky kon mané ah, kon parallèle lañ cellule parallèle ko mais Macky Sall bon parallèle dañ ko defaral nañ ko cellule am ba mu pare ne ko fii mais mais mais mais yenn xeeti yabaate yi fan lañ ko mës fan lañ ko mës a gis yow nit ku jugé guloo ko sax demagul sax ci Samba Sall mais yow préparé nga néeg bi muy nekk fi koy tëj ak lal bi ak loolu soxor xole imam ndaw dañ ko def am na ñu ne ñoo ko rey looloo tax ñu tëj ñu tëj këram xurum xaax Sonko ndeysaan mu ne maa ngi dem dara dalu maa ngi tuuti ma jooy juge boobu maa ngi mer mais heureusement ba mu génnee di dem. man loolu man man xaw ma ne Sonko moo ko préparé de Sonko ba muy génn ni dem moom dafa jàppoon ne prison lay dem mais xëy na parce que c'est un stratège amoon na tuuti yaakaar ne xëy na xale yi dinañ génn waaye ba mu ñëwee ba ci rond point ba mu gis xale yi génn ñu ne ko nii ngay jaar ci la am inspiration xëy na mu ne xëy xaaram ma exploité bi. comme xale yi génn du ma jaar fii fii laay jaar mu taxaw ci oto bi def nii xale yi bëri looloo ko ci génne waaye bu demoon wuy ji bu demoon ñu toog di xaar Samba Sall Samba Sall buum lay def mandat de dépôt ñu pare moom laa wax nag même stratégie la ñu war a jël Ali Siraba bi ñu seetaan muy génne euh, euh, décision Macky Sall daf ñuy nelawal de. affaire Adji Sarr bi daf ñuy nelawal de Mame Mbaye Niang ñuy nelawal de gis nga nemmeeku turé bi Sonko ñuy jël ay gànnaar di sànni nii dañ ñuy nelawal de ñoom lenn fi mu nekk nii benn carte moo leen dese muy Ali Siré parce que affaire si Adji Sarr buñ ci même buñ ne sonkoo mooy coupable Sonko mun na def appel te ñoom ñemewuñ def Adji Sarr coupable Sonko mun na def appel mais ma Ali Siré Ba xasee wax léegi Macky daf ko bëgg imposer sen dialogue kharam bobu ñuy waji def dans 3 jours dialogue kharam bi nga xamné ne nee nañ Macky Sall nee na ci ñaar ci 15 jours bëgg na dialogue bi jeex Khalifa Sall genn na nee na day ñom ñi ngi xol ndax dañuy dem wala dem dem leen ñom Khalifa Sall genn di xass yow askan parce que yow askan dafa genn communiquer ñu ne ñun dialogue bi demu ñu ci Khalifa Sall nak génne nañ communiqué ñu ne non non yow Assane bi keroog bañ fa nekkee dañ fa nekkoon di xuloo seen biir ñoom jëlaguñu décision dañuy dem ñu consulter seen base Khalifa Sall na sa ngelaw neex yow dañ laa suur billahi wallahi taalaay Khalifa Sall bu ñëwaatee yow askan bi dina am lu metti un traître reste un traître moo laa gën traître la ma gis tey muy teg benn benn nu mu tuddati audio kilifa naan kilifa laa wax affaire beñe kilifa naan ko woy woy xam nga beñe dugg dugub bi taañ ko lekkee dugg na fi moo laa moo gën dafa ñàkk fay dafa bëgg amaat crédibilité léegi pour mu am crédibilité il faut mu wan ñu ne booy zaal yebe xaw ma booy boobu def YouTube mi ngi koy dugal ci YouTube am ba léegi wala mi ngi wax ak euh, Yaana Mar ñun waa Yaana Mar dañ leen faale kilifa dañ ko faale kilifa nga xam dañ kaa tëj mu mu boobu ba léegi dafa ragal c'est vrai que géré la mais ñun dañoo faalé kilifa yow looy waxante kilifa ak ay ay beñe dugub ñun dañ ko faalé un traître reste un traître Khalifa Sall duñ li nga def yow Barthélemy Dias duñ man de Mister chek duma lako bal ba ila yow mi din gis Khalifa Sall yu xulen pap jibril Fall man Ndiago Sonko mako wax pap jibril Fall fo len ko gis yu xulen ko pap job traître bob fo len ko gis yu xulen ko pap Ngagne journaliste bi bobu nan day dawal xawma رانج روفر لي دون خاوما فو لين كو غيس يوخو لين كو المالك واخنا كو بوبام كيروك اك كان لو فو شريف لا احمد ايدارا سما مام سما مام سما مام فو لين كو غيس يوخو لين كو اك كان واخ لين با بارا دولي خاوما شيخ بارا دولي خاوما شيخ وا بارا واني فو لين كو غيس يوخو لين كو ньоني سوخلا توني لين سوخلا توني لين تي ياو اسكان بي ньоن سوخلا توني سخ ياو اسكان naa ñëwaat ci Ali Siré Ba buñ ko seetaan mu naan day génne décision Macky Sall doo ñu nelawal de Mame Mbaye Niang doo ñu nelawal dañ ñoo nax Déthié Fall le faux militaire la avec sa grosse tête